li ca dolliwaat itam biir siyaar yi ci biir jumaay Tuubaa ji loolu itam nañ xam ne aadabu ziyaara dafa am ku jëm si ci kenam Sëriñ Tuubaa mu wóor la ne dangay ñëw ngir teewlu si ngir lu rëy yëkkati la fi nga jëm itam gënal la fépp danga ko fa tëdd moo la gënal lépp mu wóor la ne mi ngi janoo yow kon foofa ku fay tàbbi war nga ànd ak teewlu gu rëy war nga ànd ak yëg gu mag gu mag ci sa digg sëriñ bi waaye war naa ànd war naa ànd ak ay teggini siyaare rawatina ñun yoonu murit nit ñi ñëpp xamee ci ay teggin kon dugg ci biir jumaa ji di ko boole ay yuuxu loolu bokk ci adabu siyaare mm-hmm. kon loolu itam waaw mu xaddamu xidma ñi nga xam ne ñoom la nekk seen loxo nañ ci gën a bàyyi xel ci di soññ nit ñi waaye taalibe yi ñëw itam nañ bàyyi xel ci ne jumaa ji di barab bu ñu yuuxoo du barab bu ñu foyee barab la moo xam ne mooy fi gën a màgg ci ñun mooy fi gën a tedd ci ñun ka fa nekkee gënuñu lépp kon loolu itam war nañ koy bàyyi xel bu baax